jërë ngeen jëf borom ma waxoon waxeet la mu waxoon ma nga ca ba léegi enquête yéen kay nee nañu Abdoulaye Wade fa mu ngankoon fa ngank ba tey ci tànki perturber élection yi ci la taxaw démb la ko biralaat ci ndaje comité directeur bu parti démocratique Sénégal doon amal mu teewee woon ko xew yi amee ci benn hôtel bu nekk ci dëkk bi nee na militangam yi bu leen taal bureau de vote yi ndax am na bureau de vote yoo xam ne ci kër la nekk te bu ngeen a yàqal boromam waaye tànn leen bureau de vote yëpp doole ngeen song ko jël procès verbal ya ko ci mbedd yi moom Abdoulaye Wade ne tey jii dina tàmbale ab campagne am dana solo dàllam wër réew mi def ab tournée nationale wax ak askan wi boole cee kit sa fii ba ba ñu yegg ca bésu boo tayee moom Abdoulaye Wade heure bu xëyee moom Abdoulaye Wade dina amali manifestation ci réew mi les éco nañu candidat yi fare ci kujje politique gi te doon xaar ci Abdoulaye Wade mu jàppale leen taxoon ñu ko doon piis ak Père Ndiaye ak dem di ko wuy ji candidat yooyee seen affaire baaxul njiital soppi góor gi di Abdoulaye Wade jàppalewul kenn dafay yi saboté ko teg ci journal bi tegal ñu ci dem moom Abdoulaye Wade donte mi magal terewul nee na dana sol aw dàllam fas yéene amal ab Le Quotidien ndax nee na gaañi bu leen lakk seen i carte téye leen ko garde leen ko bu ngeen di taalaka lakk taal leen procès verbal yi nekk ci bureau de vote yi L'Observateur nañu góor gi bu doon ak lëg ci mbooy la rëbb ko du yomb ndax foo ko kocc mu fëll fa ca des ne keroog bi mu demee Touba doon seeti xalif général des Mourides di Serigne Mountakha Mbacké Bassirou Abdoulaye Wade toog na xalif bi ba jóg lu dul jàmm waxu ko fa lu dul jàmm wootewu ko fa ay démb bi ñu ko déggee mu wax aw ay di fitna maanaam violence moom la doon woote nee na jël nañu dogalub songu bureau yi jël PV yi lakk ko ndax bu ñu lakkee ba soixante-dix pour ci bureau de vote yi Macky ak waa këram fu ñu jaar recommencé waat élection yi élection yooyee kenn ci candidat yi ci soobi di professeur Issa Sall l'observateur nee nañu def na ab conférence de presse démb leeral na fa it li tax mu ne woon tekk ab diir ci campagne nee na dafa defoon ca Tamba waaye dafa bëggoon it lépp leer delluwaat ci campagne bi professeur Issa Sall ne dana porter plainte contre X laata muy xamle ne la xewoon ca Tambacounda état bu Sénégal ak ministère intérieur ñoo lajji ba tax mbir yi demee ni mu demee ci xët mu njëkk Les Échos mu ne ñu fa budul woon ak njàmbaar ak mat gi nga xam ne service de sécurité mi wane nañ ko keroog ca Tamba kon ñoom ñëpp fa la ñuy dee Le Quotidien nañu njiital pur gi rendre na hommage bu pur ay garde corps am Vox Populi nañu waa pur jël nañu avocat ngir ñu toppaleen ñu nekk boobu ba léegi mu di campagne électorale bi xaaj na fu bilan ci fukki fan yu njëkk ci campagne bi le mo ci gis modi di Macky Sall mo gën a jekko Idrissa Seck top ci Ousmane Sonko de réer maître Madické Niang wàcc aw yonam professeur isa Sall mom ba léegi xamul fu muy taxaw ñu taxaw tuuti ci xët mu soleil national juroomi candidat yu suubu ci présidentielle 2019 yi ñom ñëpp ñoo nga fa lañu yendo demb ak seeni cadeau bokku na ci maître Madické Niang mané ne ci Gossas fa la xam leene bu falo dana dolel mbayam gerte gi tay dina relancer wat ray bi Ousmane Sonko yëkkati ay cadeau ci biñona cadeau yu jëm ci woote jamu jëmi ci wooteeg dal Idrissa Seck diggée ne moom bu faloo dana yokk bourse familiale yi professeur Issa Sall wax ca la xewoon ca Tambacounda ba xam le ne ñoo ngi dunde yaakaar ci ne justice mu di yoon dana ca dem ba jeex Macky Sall soleil national nañu ma nga woon ca Foundiougne fa la waxee ne pétrole bi ñuy séntu ci réew mi lu ci mën di ruuse du ump askanu njombaatoo libération nañu wax na waa Foundiougne démb ne leen ñëw fi ngir di campagne dama leen a nam mu seet si leen vox populi nañu suba lay seeti waa moom candidat Benno Bokk Yaakaar bi waa dëkk ba ñoo comité communal bu Diourbel bi def nañu ab conférence de presse keroog fa la ñu déggee ci kàddu yu docteur Souleymane Soumaré mu ñaawlu fitna ja amoon ca Tambacounda lu bakkan ya fa rot docteur Soumaré nee nañu góorgóorlu ba ku ñu woo ci fitna bu ñu la faale ndax fitna bu amee ci campagne bi opposition bi kese lay arrangé te ñun ñi ci mouvance présidentielle bi lenn rek moo war a doon suñ yitte jamono ji moo di lu falaat Macky Sall vox populi nañu docteur Souleymane Soumaré yamu ca ndax sànni na fa Idrissa Seck aw doj wu rëy Idrissa Seck ak Ousmane Sonko ak maître Madické Niang Les ko nee nañu ñoom ñëpp ministre Mame Mbaye Niang wax na leen wax ju rëy Mame Mbaye Niang nee na Ousmane ko xamul dara ci état ak ni muy doxee ma Madické Niang faj mer moo ko yëkkati Idrissa Seck sénégalais yi wóolootuñu ko suur su a nañu li Abdoul Mbaye dégg ci ministre Mame Mbaye Niang kenn dootu ko déggati ndax Mame Mbaye Niang nee na Abdoul Mbaye wax waru ko ndax opposant boo xam ne ci législatif yi weesu trois voix nga am ci sa bureau de vote opposant bu ni mel tojul fenn tekkiwul dara